laa fi téye de téye naa prime prime de prudence mi ngi nii lu tax damaa laaj mi ne ma ñaari chauffeur a fi am ñoo indil ma prime de prudence lu mat vingt personnes ma ne prudence mooy lan mooy mooy ñiy dawal oto ma leen waa ku dawalu oto am na ma laaj ba xam texte ci la ne ndax dawal bi la wala ku nekk chauffeur dañ ma ko jox ñu ne naa ñu ne pour dawal bi la ma am ku ma woo fii ku ma dajal keroog bu ñuy def euh, nu mu tuddati randonnée waaw mu wax ma am na lu ma ko wax dama ko fàtte waaye kayit ngi ci man léegi signé naa ko joxe naa ko signé naa lépp joxe naa ko waaye maa ko téyewoon loolu maa wax de waaye beneen bu ma fi téye amul salaire yii ñu wax tamit 31 bi ngeen waxee fii ba noppi bi ngeen waxee fii ba noppi dafa am incompréhension incompréhension bi mooy man damaa waxoon SG ne ko bala ngaa dagg salaire na na nga ko bind ne liggéey si woo yónnee ko huissier bu diggaatee ne nangu naa pour liggéey si jox commencé liggéey bu nee nag man damaa am beneen liggéey ba mënumaa liggéey dem nekk ci RH mu négocier départ négocier parce que loolu la jaam loolu la demee nag yónnee wuñ ma ne leen yón yónnee na huissier xëy na diggante bi ma waxee ne huissier bi ñëw ak diggante bi ngeen ci ci la la inspecteur woo ma passement huissier ma ne ko demal si man maa ngi wut jàmm maa ngi daw wut si ci yéen yaakaar naa incompréhension moo am loolu nag nañ ko fàtte xool li si suñ kanam lu si suñ kanam lan la man waxuma ne compétent wu leen déggu leen ko fenn ma man dama ne salaire yi retard du salaire yi incompétence la wala sabotage te wet ba tey laa boo wax retard du bu amaatee tamit ñiy defar salaire yi ñoom mënut a defar salaire yi wala dañoo bëgg a saboter sama liggéey parce que man bu ñëwee du taxaw ci man. démb ci 18 heures wala 20 lañ ma yónnee salaire 31 yi bi ma xëyee jox naa ko émission. waaye man waxuma ne yéen la ma wax mooy benn moom moo ma mën a boole mooy mu bañ a liggéey waaye même bu mënul liggéey danaa ko former pour liggéeyal ko démb li ñuy def rectification bi ci 10 millions moo fi nekkoon pour formation dama neen nañ ko def 35 millions kon dama bëgg waxuma la formation sax bu mënul sax nañ ko jàngal parce que dafa dafa wuute sama gis-gis ci CCBM cœur de ville bu dul mënul dama naan ko demal wuti liggéey feneen dama lay dàq man maa am obligation ki ci mbedd mi wutal ko liggéey kon ki fi nekk di liggéey bu munul nañ ko jàngal ba man a bañ a liggéey loolu mooy ci sama gis-gis li may jotee kenn rek mooy ku nanga wutal liggéey waaye ku mënta liggéey te bëgg formation bu dee jàngiwaat sax mën naa laa fayal nga dem jàngiwaat boo paree nga ñëw amal leen kon nag jàpp leen ne li maire yëpp di jéem a doon def man naa ko def te loolu lañ ma digal waaye defuma ko lan lañ ma digal mooy wutal say nit ñu wër la alxuraan daf ñu ne idfa' billatii hiya ahsan fa izaa llazii baynaka wa baynahu adaawatun ka'annahu waliyyun hamiim mu ne seetal sa noon bi la gën a bañ nga defal ko lu baax mooy nekk xarit bu gën a jege ci yow loolu yàlla moo ko wax waxu yàlla bu nekk kon nag jàpp ma kenn noonu ku ma jàpp noon tamit xamal ne baal naa la nañ fexe nuñ mën a liggéeyee kër gi ndax kër gi nag xam leen ne bu leen waa Kaolack gën a koy salaire bii ngeen di am kii ci mbedd mi mooy fay kee di fay kantinam jakarta bi di fay deux mille te moom amul obligation ne naa am li mu am te yéen am ngeen obligation seen salaire yéen yéen obligation moom bu tëddoon këram sax jakarta bi yàqu da ngeen fay dem ne ko fay ñu suñu deux mille francs kon nag jàpp leen ne yéen da ngeen am avantage mais obligation boobu ngeen am ñoom ñu waroon di fay di def loolu am leen kon nag man na jeex ñu waxtaan waaye nag ñàkk liggéey moom du ma ci ak kenn ndax kat su ma ñàkkee bàyyee ñàkk liggéey lan mooy am dans cinq ans man la ñuy dàq ci biti gàcceel ñu bind fii na sëriñ boobu mi ñu amoon yaakaar ci moom tas na suñu yaakaar maa ngi leen di gërëm leen sant jërë ngeen jëf waaw syndicat yi moom remercié naa leen ci commencement bi ci commencement bi moom laa jëkk remercié madame Tall nee na ma remercié waa den waaye ci commencement bi yéen laa jëkk remercié parce que yéen yéen a ma leeral ne mbir mi amul politique yéen a ma ko leeral te démb waaye ba démb damaa jàpp ne parti politique laay waxaat waaye jeex na incha allah jël ngeen ci nuyoo bi nag ñu ci jiite ñu ci jiital monsieur le maire Serigne Mboup di ko sant bu baax di ko gërëm avant avant ñuy ñëw xaaral rek avant ñuy ñëw ci euh, monsieur le maire Serigne Mboup au fond du te li ñuy wax bu ñu gëm bu ñu ko gëmuloo duñ ko wax madame le maire première adjointe madame Tall wax dëgg yàlla liggéey na ci liggéey bu mucc ayib pour diggante bi tax pour jàmm am bi coow li amee fekku fi monsieur le maire Serigne Mboup moom moo woote ci kaw ñu toog ñu waxtaan ñu dem inspection mu ànd ak euh, Mbaye Ngop ñu waxtaan bi maire ñëwee aussi mu créé condition yi nga xamante ne bii war nañu mën a toog ñu waxtaan maire fenn rek laa d'accordul mooy bi ma waxtaan ak yéen sama xel xaw na dal na sa xel dal non maire na sa xel dal si nga lii barke Baye Niass du daray politique je suis désolé du daray politique ñun amul benn doomu aadama bu nga xamante ni mun nañu manipuler sur le plan politique ba ñuy foye ba ñuy ba ñuy euh, caaxaane euh, euh, liggéeyu intérêt travailleurs yi amul affaire bu am la boo xamante ni bi kenn prévoir koon tun kenn amul kenn ku ko prévoir woon kenn jiitewu ko ay liggéeykat yu toog gisuñu seen salaire ñu génn ci biti loolu rek la mais du leneen bañ toogee waxtaan aussi retrouvé wu nañu ba jàmm dellu suñu ci kër gi ma bëgg tey ci suba a 13 heures def nañ assemblée général waroon nga waroon nañ la filmeel li fi nekk ci doomu adama te ñëpp nekk ay travailleurs bu commune bu Kaolack remercier nañ la xam ni xam wax gaa yi ni li fi xewoon incompréhension la manque d'information la parce que boo jiitee ay nit nga nekk tampon entre le maire et le personnel tu dois tu as une obligation de donner des informations bu fekkee dafa am rétention d'information loolu mooy andi coow mais li nga wax lépp leer la bu ñun sax dañu xaw sa bus parce que xam nañu li fi xew yëpp yow amoo ci benn part de responsabilité en âme et conscience amoo ci amoo ci benn benn part de responsabilité incompréhension la waxtaan nañu tey ci suba tey wax nañ leen ni leen ñun duñu défendre ku liggéey liggéey li ngay wax fii yëpp man la ma ca waxoon ca jamonoom ba fii ma taxaw di waxante yow je l'assume amoo ci dara lu ma ciy daw nag mi ngi sama portable la ma waxoon balaa ngeen di ñëw ci lépp lu fi mun di xew ma mujj génn ci sama gémmiñ bi man Abdou njaay dama koy assumer mi ngi fii te daw ba ci dara lépp am lépp moo am aw dara lu ma ciy daw léegi nag nous nous sommes parce que bu ñu nekk ay liggéeykat di liggéey ci mairie bi di xëy 8 di wàcc 16 heures wala 17 heures di cautionné koo xam ne dafa tëdd këram jaaxaan ñàkk ba a liggéey ñu du ko fay salaire. dama ni fin du boo demee crédit mutuel da ngay yëwu ci yàlla buñ la nee ñii ñëpp mairie la ñuy liggéey yow da ngay jaaxle nga ni ñuy fan nekk ci mairie bi mais loolu on l'assume amul luñ ci daw amul luñ ci daw lu am la dañu bàyyi raayante bi. te ñu seet naka la ñuy redresser bi ñu nous sommes prêts à vous accompagner pour que ñu redresser la mairie. camarade ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam ngeen may ñu rek comme ni ñuy ko protocole bi sant obligé moo ñu jiital suñ nuyoo ak suñ cant ak suñ ngërmande ci monsieur le maire sëriñ Mbuub mais également ci conseil yi nga xam ne yëpp ñu ngi ñëw tey ànd ak moom teewe si jataay bii tey loolu lim ñuy jox comme signification mooy daje bi daje bu am solo la ci sëriñ Mbuub daje la bu am solo aussi ci conseillers municipaux yi daje la aussi bu am solo ci personnel bi parce que ni ñu teewee tey ku gis sérénité bi am tey ku gis euh, dal bi am tey danañ xam ne jataay bi jataay bu am solo la parce que jataay bi dafay déterminer l' avenir de la mairie de Kaolack jataay bi dafay déterminer la mission principal du maire Serigne boobu kon monsieur le maire ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ci jataay bi euh, du ma des si longuement ci remerciement yi nga xam ne suma camarade secrétaire général Abdou wax na ko par rapport ak ñi la jiitu wala sa collaborateur yi fi nekkoon liñ jot a def parce que moo tax lii mën a am tey en commençant par mami première présidente cam ak Mbay Ngom ak mboolem ñi nga xam ne ànd nañoo ñoom ba ci DRH ñoom ñëpp contribuer nañ ci lii ba lii mën a am donc ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen sant monsieur le maire je pense que tey jii ku fekkee wutoon waxtaanu démb bi fekkee waxtaanu tey bi rek mën na am suffisamment les bonnes notes et les bonnes informations pour dire vrai que monsieur euh, que Serigne bu nitu jàmm la nit ku pare pour tàllal ñëpp loxo nitu jàmm nga ci dox jàmm nga ci wax jàmm nga ci jëf te démb biñ toogee ak yow wax dëgg yàlla kuy waxal yàlla démb sa yaram ndaw na te waxaat na ko léegi lépp loo xam ne xew na fi ñu ngi wax en âme et conscience ne lépp am ne mais duul ci responsabilité te leeral na ko léegi mu ñëpp di ko dégg et ñu wax ne nag am nañ indépendance su fekkoon ne loolu muy wax amul dara lu ko expliquer lu ko confirmer je pense que suñ koy suñ noppee it mën nañ koo ñàkk tàcc mais ñu ngi confirmer li mu wax yépp benn bu ci nekk justifié nañ ko toppal nañ ko suñ bopp ba gis ne wax dëgg yàlla amul ci benn responsabilité monsieur le maire ñu ngi lay gërëm ci loolu eh, monsieur le maire li amoon fii lenn rek moo ko indi manque de communication personnel bi dafa am droit à l'information personnel bi dañoo war a di xam li xew suñ ko xam bi rek jàmm am te disposé nga aussi pour jox nit ñi la bonne information kon c'est sûr ko problème dootu am yàlla bu problème amati donc monsieur le maire ñi ngi lay gërëm di la sant ci disposition bi nga am ñu wax la ne wax nañ la ko démb ñu ngi la koy répété waxtaan tey syndicat buy défendre lu défendable lay défendre nit mënul nekk ci lu syndicat di ko défendre nit mënut di ñàkk a liggéey syndicat du ko défendre nit mënu xëy tëdd këram syndicat du ko défendre syndicat bi muy wax waxut ak ñoom syndicat bi muy wax ñii lay waxal personnel bi toog fii lay waxal personnel bii nga xam ne foo dem ci service boo leen fekk jaaral ci santé jaaral perception demal trésor demal mairie demal partout foofa dem da nga fekk ni ñu apt lañ ñoo xam ne ñi ngi def seen liggéey ni mu waree di xëy heure di wàcc heure ñun ñooñu la ñu waxal personnel boobu la ñu parce que personnel boobu rek monsieur le maire ñoom rek ñoo la mën a accompagner pour nga wér mën a réussir sa mission. mission bi c'est une mission transversale mission bi ci compétence yu bëri la ne ñoom ñooñu ñu ngi ci compétence yooyu yëpp monsieur le maire soyez rassuré personnel bi dana la accompagner dana la gunge dana la dimbale dana la jàppale ba nga fi nga jëmal Kaolack nga yeggale ko parce que ci Kaolack la bokk te bëgg nañ Kaolack avancer je